bokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw yëgle bu yaatu bi ñu amaloon ren jëm ci jongante mbindum alxuraan bi ñu baaxoo amal at mu jot tudde ko yaatal mbindum alxuraan C3S moo yëgal ñépp rawatina candidat yi jotoon a seen bind ne dafay ajandi boobu le ba yeneeni jamono li waral lu ni mel nag moo di tolluwaayu mbas mi di coronavirus lëmbe àddina te néewal jotaay yu xumb yi bokk ci li koy xeex ba waral ñu jël bile dogal c 3 mi ngi fàttali ne warteef la ci moom mu sàmmanteeg yile dogal bàyyi ci waa kër muy xamal candidat candidat yi jotoon a bindu ne déposé yépp agsi nañ te saa ñu jubluwaatee ci weer liggéey bi daañu woo mbooleem ñi jàll ci xaaj bu njëkk bi comme ni ñu ko daan defee C3S mi ngi ñaan ci barke alxuraanul karim sunu borom jële fi mbas mi ci lu gaaw assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu anta bi ni'mati rabbika bi majnun ñaan yàlla sunu boroom subhanahu wa mu defal ñu tawfiq te defal leen ko mu defal ñu it taysiir te defal leen ko loolu yomb na ko lool yàlla na nu ko defal bi barakati seydina muhammad sallallahu alayhi wa tey jii bayaan bi ñu taxaw suñu mbokk mi ko waroon a def dafa dem ba léegi rek mu am ngant ba tax ñu am ndigal dellusi si eh, taxawee ko ngir yeggale li des ci waxtu wi bu ko defee waajoon na moom ab thème bu am solo bu mu war a naa jàllale tey waaye sun boroom moo ki dogalam jaama ki bëgg-bëggam yàlla na yàlla di def dogal yépp di tombe ak bëgg-bëggi jaam yi loolu sun borom mën na ko yomb na ko yàlla na koy def saa su nekk di ko defal bokk yépp bu ko defee ci jamono yi nu tollu ak ci waxtu yii nu toll dellu ci sunu boroom subhanahu wa dellu ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci seenum njàngle day baax lool dellu it roy ko moom sallallahu alayhi wa ci ay taxawaayam ci zuruuf wala ci jamono yu mel nii ndax loolu rekk a taxoon suñ boroom yabal ko yabal ko ci nit ñi ngir mu ñëw jàngal nit ñi wan nit ñi nu ñu war a dunde seen diine nu ñu war a dunde seen àdduna ba tax na mën nañoo jël ci moom darus walla bind bu leer boo xam ne jàngale na ko dund na ko moom sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ni moom jóge na makka dem diina gàddaay dem ba ma diina mu def fa ab diir lu war a toll ci juróom-benni at namm lool màkka saxaaba yi mu àndaloon gàddaay ñoom it namm lool makka yàlla mi dogal daldi dogal mu gént gis ni ma ngay dugg màkka moom ak saxaabaam yi mu xëy daldi nettali gént gi saxaaba yi ne leen dama gént nu dem màkka di umra watu jemp muy tekki ni kon umra nañu ba mat te ba ñuy dugg màkka ci dal lañ ko dugge ba nu fa nekkee ci dal lañ fa nekk amunu menn am tiit ci sunu biir nettali gént gi xaaba yi diir bu gàtt mu daldi leen di yëgal ni leen acca leen waaj leen ñu dem Makka umra ji saxaaba yépp jort ni kon géntam googee mu géntoon ndekete moo dëggu tey ñu ànd jëm Makka ma nga ànd ak junniy saxaaba ak ñeenti téeméer ci li gën a wér ba muy génn jiital na juróom-ñaar fukki gëléem ndax bu demee loj ko fa màkka muy hadiyu li ñuy def fa màkka ba mu génnee ba yegg zul xulayfa moom lañuy wax ab yaar ali léegi mu armal ànd ak ci saxaabam ñu nga jëm màkka ba ñu demee ba diir bu gàtt dese leen luy tolloog buñ ko doon lim ñaar fukki kilomètre wala lu mel noonu fekk yebal na ay ndaw yu ko jiitu ji wala am na ndaw yu ko dikkal ne ko waa Màkka génn nañu de ñoom ñépp génn nañu nee nañu doo fi dugg yamuñ ci loolu waaye nee nañu gaw nañu la boo bëggoon a delluwaat Madina sax doo dellu ndax ña nga fa sallallahu alayhi wa sallama wàcc foofee ca bërëb bu ñuy wax Xudaybiya moom ak i saxaabaam daldi yabal Omar ibnul Xattaab ni ko demal yëglul ma fa Makka yëgal leen ni leen maa ngi ñëw Omar ni ko man xam nañ ma am na nu ma demee ñoom kon yabalal Usmaan ibnu Affan radiyallahu anhu mu yebal Ousmane Seydina Ousmane dal dem ba mu demee Makka xëy dem ñu jàpp ni dana gont si waaye fanaan gont siwul ñëwul ci ëllëg sa ñu jàpp ni dana xëy si osmaan xëy siwul benn fan ñaari fan ñetti fan ba ñeenti fan ñu siiwal ci mbooloo mi ni Ousmane rey nañ ko fa Makka ha mbir mi soppiku nag ndawal yonent bi Seydina Usmaan ñu ñu yebal ko Makka ñu rey ko fa déedéet loolu moom day daldi soppi taxawaay bi day daal di soppi yéene yi day daal di sotti xew-xew bi yonent bi daal di taxaw saxaaba yépp ñëw taxaw ñu jaayante ak moom saxaaba yi taxaw mu tàllal loxoom ku nekk teg ci loxoom ne ko duma daw dugg màkk rek waaye kenn du daw am na ñuy jaayante dee lañ ko wax dañ ko ni duñu duñu daw wala boog dañuy dee ñaari riwaaya ñu jaayanteeg moom junniy nit ak ñeenti téeméer ku ne teg sa loxo ku ne teg loxoom ci sa loxo dana toqi sa loxo dafa mujj loxo bi dafa toqi ba Omar ibnul Xattaab moo ko ko taawul ñuy jaayante ci loolu jaayante ba yegg waaye bi ma mag yégée ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soppi na xalaatam nee na day ñëw dal ci suñu kaw ñoom it ñu soppi yonent bi waxoon na ko nusirtu bi ru'bi masirata shahr man fu ma jóge jëm ci xare ñamay xare su ma demee suñu boroom ba ma leen jubee lu toll ni weer yàlla dina dugal ci seen biir ak ragal danañu ragal danañu tiit ñu yebal ñoom waa Makka ku ñuy wax su Suhayl ibn Amr ni ko demal boo demee nga waxtaan ak moom déggoo moom lu ngeen déggoo rek ànd nañ ci noo la ko wax Suhayl ñëw ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa ñu daldi disoo waxtaan ba juboo ci ay kàddu yu dëgër yonent bi sallallahu alayhi ni ali ibn abi taalib kaay nga bind ko bind leen déggoo gi li ngeen déggoo li liñ déggoo ñu tàmbali bind bañ demee jël kii lu ñu bind walla fa ñuy bind bismillahi rahmaani rahim Suhayli ni ko dindil rahmaani xamuñu ko bu nu ko xamoon du nu taxaw fii li ñuy bind bindal bismika allahuma ñu dindi yonent bi ni dindil mu dindi mu bind bismika allahuma daal bind allah ko bindloo moom sallallahu alayhi wa sallam bind bismillahi rahmani rahim suhayli ni ko dindil xamunu rahmaan bindal bismika allahuma ñu bind bismika allahuma daal di bind hada ma qaada muhammadun rasulullah suhayli ibn amr suhayli ni ko dindil muhammadun rasulullahi xamuñu ko bu nu nangu woon ni yow yaay rasulullah duñ taxaw fii di bindanteeg ak yow ak déggoo yonent bi ne aliin far ko aliin waat ni du ko far xalaatu la far muhammadu rasulullahi du ko far yonent bi ni ko won ma ko teg ci sama baaraam ma far ko seydina muhammad niñ ko xamee ummiyu la mun du jàng du du liir mënta bind mooy an nabiyu al ummi alin won teg ci baaraamam mu far ko mu far rasulullahi ja ñu bind hada ma ahada alayhi muhammad ibni abd ibnu abd ibnu abdullah suhayl ibn amr lii la Muhammad ibn Abdullah dëppoo ak Suhayl daldi dini Muhammadu rasulullahi joojee ñu bindoon ñu ne ko ay ñu yeggalee seeni bunuud sart yi ñu déggoo ñu tàmbali di ko bind bokk na ca ren moom du ngeen dugg màkka dangeen ngeen di dellu ba déwén Muhammad ni waaw bokk na ca fii ak fukki at dootuñu fi xeex diggante jullit yi ak yéefar yi xeex dootu fi am diirab fukki at Muhammad ni baax na bokk na ca képp koo xam ni bëgg naa farag yéen waa Xurays waa Màkka na farag yéen képp koo xam ni bëgg naa farag Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jullit yi nafar ak ñoom Muhammad ni waaw bokk na ca déggoo ga koo xam ni jóge na Madina ci jullit yi dellu makka Màkka dangeen ko fi bàyyi Muhammad ni waaw képp koo xam ni jóge na Màkka ñëw Madina te du ci ay ndigali ay kilifaam da ngeen nu koy delloo sil Muhammad ni waaw saxaaba yi ni déet mukk loolu duñ ko nangu luy loolu sart yi na yam Muhammad ni leen baal Omar ibnul Xataab ca xadar ba ca tàggaay wa ñëw na ci yonent bi ni ko xanaa nun nekkuñu ci dëgg mu ne ko axakay xanaa ñoom nekkuñu ci ay neen mu ne ko axakay li ma naqbalu hasi daniya waaw doyadi gii nag lu tax nuy nangu doyadi gii ci sunu diine ji nag muhammad ne ko man maay rasulullahi man mi la yàlla yónni te yàlla bàyyiwu ma de wal wat na ni dana ma wallu te li may defit defuma ko ci sama coobare moom yàlla moo ma koy digal wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa mu ne ko li may def sunu borom ma ko digal te bàyyiwu ma mu dem ci abu Aboubacar wax ko li mu wax Muhammad li ma naqbalu hadihi daniya fii diininaa doyee di giinu nangul ci suñu diini ji lu ko waral abu Aboubacar ni ko aljim xarza kii toppal ci gannaawam ma rek melal ci moom ni ak teg wala dëggal yu ñu takk ci ay fas mun ci aw fas mu ni ñàpp ci kaw mooy wax ni nu arab la mooy toppal ndigalam rek bu ko moy lu mu la digal defal lu mu la tere bàyyi Omar dem toog aku tàngooram lu bari ci saxaaba yi loolu yëngal na leen waaye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nangu sàtt yi ndax lu ko sunu boroom xamal te xamalu ko ñu ci des mu digal leen ne leen dem leen saxaaba yi hadiyu leen te leen te ñëw ñu dem saxaaba yi yépp ñu ci bëri boog daal di am di diital yëf yi diis ci ñoom ba xamul lu muy def mu dem ca soxna umma salama àndoon naag moom ni ko halakal muslimuun jullit yi alku nañu mu ni ko déedéet lu tax mu ni digal naa leen ñu bañ mu ni ko déedéet sart yi moo tar sart yi ñu sartoo ak ñoom moo metti ci ñoom waaye ni ngay def taxallulal yow sangul watul defal sa hadiyu te sa gëléem ni leen maa ngi dem ñépp dinañ la topp